ci ay jamono mën nañu ne nekkoon na fi denrée de première nécessité laata ceeb bi di ko wutu pepp wi mën na ruy laax fonde caagri wala cere. ñu soq bees sebet jëmale ci machine ba ngir mën ko wal daldi am sunguf Moussa mi ci walum wal di ci gis jamono ji ñuy bi vraiment mom moy op li ngay job euh, ak yenen jour yi quoi manam jour yi nga du euh, euh, événement quoi waaw événement bi mom waaw dañuy yalla daal. ñu ngi ci am benn soxna buy wuyoo ci turu Seynabu ci dugub bi mu ciy liggéey te yàgg ci lool ku ne xamee ko ci ba am sax ñu koy na bu cere man depuis 84 boobu xale laa mag maam ñoo fi nekkoon sama 86 dem parcelle ma sama yaay ma nekk di tay di ko ma des fi ak doom bu ñu yeewoo bu ba ba jàpp julli ba pare dañu 11h midi ñu sebet ci machine bi mu wal 3 ñu commencé mooñ pare 6 heures. saay su xëyee ba jant soow muy dang-dangi nabu ak njabootam ñoo bokk liggéey bi donte sax xale yi dañu ko boole ak njàngum l'école. dañuy jàngi bi ñu xëyee dañuy jàngi bi ñu wàccee ñëw fekk ma defar ñu jàppale ma sama sœur bee su ma fi nekkulee moom mooy sebet def yëpp ñoom bu ñu ñëwee wari bu ñu ba pare ñu mooñ. suñu moña ba tey pa ñu dem réviser cere ji bari na ay ferñeent yu ci nekk yu baax ci yaramu doomu adama ba tax mag ñi tamu won ko lool magi dañ ko daan jël def ko sànq def ko ñeneen nga defee ñeneen mooy comme dañ koy togg comme ceebu jën dugub dafa baax ci yaram gisoo magi ñëk bi ñi lekk dugub do jabe bi dañ ko jabet déggoon di eh, attraction bi de moo ko rey déedéet wala dafa lan dafa am lii lu mu koy wax teewaay mal malaise mais léegi bàyyi lañ loolu da ngay lekk yàpp guddi lekk dawlin guddi boo xee ma ne du ma lekk cere wala kaa lañ lekk cere loolu amu dugub dafa baax ci yaram mag yi bi ñu koy lekk ba tey ñu ngi dëggal da ngay gis ko am 90 ans yenn saaku ceeb nga gis xale bi tey gis xale bi tey am 10 ans retraité la dafay judd rek retraité parce que lekku dara ci dugub cere rek la ñuy lekk meew meew pël bi pare nañ ci te ñun ruy lañ daan dundee laax ngurbaan ah ñeleñ mais yooyu yëpp bàyyi ko léegi kenn lekkatu ko tey ban xale nga ñeme tegal laaxu benkel du ko nga jàmb buy sotti ci amatul te ñun yooyu yëpp dañ ko doon dundee. bu itam xarit jotan liggey bi daan yokk xaalis bi daan dugg bu baax wante léegi mel ni jamono soppi. Ya bi ñu demee foofu ah gars yi de ñëwaguñu mais dinañ ñëw nag parce que ñu bëri ñu xaar dernier moment la xaar bu desee deux jours trois jours gars yi commencé ñëw di daal ci sans dépense jaay bi la bu gaawee comme temps bu njëkk dugub bi mu amee yomb nga ci am xaas mais léegi dugub bëriwul yomb tañ man mënu jaay lu seer tax ci am mais duma ci am lu bari paanu cere man 7000 laa jaay paanu cere. ci bés bi mën nga si jaay ñaata pan? sans dépend mën nga jaay ba 50 sans dépend bu fekkee ne client am na mën nga jaay ba 60 80 soo nga nag ñaan talal loxo nga nga 他那个可能更多一点吧。感谢我们。他们那 xale yi mujjee judd xamuñu cere laalo bii lañu xam boo nekk defalee dañ naan la fa weex bii ne du weex lu def dara boo ko tayee ba mu ñoom boo ko joxee soos mu jox la ko boo ko joxee meew mu jox la da koy tay ñaari tay doo ko lef daf ko tayal yëkkati pare day mel ne cere càq boo ko siimee ndox bu tàng mu doog a génn donte sax ay yoxoom jotul ginnaawam wante mère Seynabou mu ngi góorgóorlu ci liggéeyam ngir yor njabootam muy sàkku ci nguur gi ndimbal ci wàllum matériel ngir gëna mëna mën liggéey bi ba ci am rek jël na ñun soxla nañu dimbal ñun tamit parce que depuis 84 nga nek ci benn liggéey mënu amul développement lo am yaa ngi koy lekk di ko naan il faut ku nek ñaan nga yalla am développement ñun tamit bëgg nañu am développement. bañ dem am ci machine yeeg suñu société tek di jaay gaay ci cere ñukay jël koy jël. fan ñu amal tam xarit bés bu ëmb ada ak ciusan wante léegi njabot gu bari dañu teggi seen loxo ci la fi mami yi won ci noonee jëmale ci wàllum togg mi ñu seeti merlam xam-xamam màcc lool ci wàll wi ba muy ndaw ba tey mu nekk ci ku ne xàmme ko ci cere tamxaritam wute lool ak yi xale yi xewal ñun bu tabaski gi dañuy jàpp suñuy yeeli xar xooj bët set nga rocc ba mu set weer ci leen ji ba mu wow jël sa ay bopp xarak yooyu muusal ba mu wow koŋ nga weer sali ko sali boobu moom la sama yaay daan def moom la ñu gis boo salee def sa xorom bu bari xorom boobu moo moo koy rey mooy rey lépp loo ca dagg lu tuut tuut rek boo ko defee ki sa cin da koy jox beneen goût beneen goût la koy jox moo tax ñu naan yàpp yàpp yàpp yàpp daaw la yàpp daaw yàpp daaw boobu nag dara du loolu lu dul lool rek yàpp tabaski la nga weer ko ba mu wow sali ko ba mu ba mu neex nga nga weer ba mu wow koŋ nga def ki sa mbuus denc booy ki nag tàngal sa ndox raxas ba mu set ah boo fekkee ne sa yàpp ñor na ba nga tëmbal tekk say ginaar roof nga ko raxas ba mu set ak sa njàmpe macha allah defar ba mu baax ba mu set ba du am xet nga daal di saaf ba mu xonq teg ne boo bàyyee ba say cin di baar bay xot-xoti nga diigal sa ginaar bu ko defee da koy jox guur boo demee ba ginaar gi saf nga seppi ndànk teg ne cere yooyu nag moom lañ def ndax gaas la ñuy toggi jënd sa yomb bu ñaar téeméer mu jaral la ko wala sa yomb téeméer ñu naa jamono dafa saase loo koy def barkeelu rek la jënd sa pataasu Guinée bu bu dijj ak sa pomme bu dijj ak sa carotte bu dijj yooyu yëpp da nga koy jiital saaf ba mu xonq nga teg ne def sa tamaate jeeg bu jar baajee baaje baaje tubaarkal la ba mu neex li ngay génde ay ajaa yi génde ko sa tamaate ba mu doy génn sa tamaate njamb bu xonq bi segg ko ba mu baax nga doof ki sa machine ba mu baax wala nga jàmbal ko sa bopp dëbb ko diigal ki sa biir ñulu ko moo am solo nga def sa laurier bu bari sànni ki sa ñaari doomi kaani muy tëmb nga poobar ba yam yépp yam nga bomb sa cere teg sa raisin bu ko defee nag nga daal saaf sa jaga nag jaga bi bañ a wow boo defee sa beurre zodida bi def sa tuuti diwle wàcce tëmbal ci defar ba mu baax boo boo bombee bomb ba day daal di yem nga sànni ki sa tuuti diw ñor lu ci nekk rek la nga ciy def rek na na xëccoog moroomam rek na xëccoog moroomam rek tem-temi ci wàllum bomb cere boobu nemmeeku nañu ni bari na yee ñu cay def yuy indi ay gàllankoor ci yaramu nit ki chef Mamadou Diouf moom it cuisinier la ñu ràññee ko ci loolu àddina seede ko mu ci antu soxna dañ bëri seen feemu bopp te ku si nekk day bëgg a wane dooleem wane mën mën mënam euh, elles sont très créatives les femmes sénégalaises parce que da ngay gis ñu defar cere ne dañ koy bomb man lekk naa cere yoo xam ne gis naa si ay tàndarma def nañ si ay raisin def ci ay haricots blancs ay petits pois des une macédoine de légumes quoi boo xam ne une mixture de légumes boo xam ne en brunoise dañ koy jaxase si biir et il y a beaucoup de matière grasse. xam nga des fois ñu togg ba nga xam ne diwlin dafa mel lay xelli ba xelli su xelliwee nag gars yi tonn ñeex boobu noonu ne moom la ñu bombee cere bi te fekk foofu après su seddee day coaguler waat. mais ce coagulé fait que nous avons beaucoup de choses. ça ne se voit pas et c'est là où c'est vraiment dangereux pour nous qui consommons. en mangeant le cere pour nous nous avons des bomb nañ ko ils s'en foutent mais alors que le yëpp dañ ko war a di le bien-être en soi-même dans le traditionnalisme le traditionnalisme est cere suñu maam yi dañ surtout. Le fait dañ doon togg ne kenn du ko day neex digérer rapidement mën dem à tes occupations mais léegi soo xoolee tam da ngay lekk cere ba pare soo gis gis gis et parce que la nourriture qu'on mange en général dans les elle n'est pas saine il y a trop de produits ajoutés ça ne sert à rien du tout la nourriture, elle est beaucoup plus agréable à manger, elle est beaucoup plus saine si elle est préparée naturellement. loolu yëpp jigéen ñi dañ si war di bàyyi xel. ay digle pas mu jëmale ko ci jigéen ñi. nit soo ko bëgg mu gudd fan war nga xoolaat li nga koy jox pour mu donc personnellement ce que je conseillerais à tout le monde sooy togg cere toggal sa ñeex bu neex. donc su fekkee ne da ngay def yàpp def ginaar ak affaire yooyu xam ne bu si nekk dafa matière grasse jaru ngay def dëwlin si sa togg émulsionné na sa yàpp après nga def sa oño nga dagg ko baax nga dugal ko ci biir dina fondre su fekkee gu oño ngay wut ci biir parce que bu boobaa yàpp bi xam nga dina dégorger benn euh, matière grasse boobu mun a togg sa yàpp mun a togg sa sa sa di nga am li nga bëgg dañ naan fem mais amul fem fem amul. nit ku ne xam nga lu baax xam nga lu bon mais le conseil qu'on va donner aux femmes c'est que il faut essayer de manger plus sainement et plus naturellement pour garder la longévité et la bonne santé des gens. Tam nag ku ko wax xel dem ci yenn ci ay baxantal yu ñuy faral di ci def mer Lam di fàttaliku ba muy ndaw na ko daan dundee. dan daan def bu nu toggee xarit ba pare ak maag sama ñoom yaay ak xale yi. bu ko defee ak sam papa mi ngi fi dañuy daldi di ni pare dañuy daal di jël bool bi li ki des dañu koy ñiit ba mu set daal di dank benn dank teg ko ne cere bu nu ko dankee waaw teg ko ne bu nu ko dankee teg ko ne dañuy daal di jal sam mooy jëkk a jal sama yaay jal man ma jal xale yi ci par toppante la ku ne jal wax sa soxla jal dañuy jal nii suuf si dañuy tibb jal loxo ngay jëkk a jale jale tànk jale ginnaaw def nii ku ne def nii ñun ñëpp ñu def nii ku ne jal jal ñun ñëpp ñu jal xam nga loolu amoon na bu ko defee boo paree jal boobu dañuy jël bool bi sam mooy jëkk a ñaan ñu teg bool bi dëpp ko mu ni bisimilah rahmaani rahim ñëpp ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tamxarit gii ñu jub nekk ci ni yàlla nañ ko teebi dibir yu bari ñun ñëpp ñu bokk ne amin gudd fan ak wér ñu ne amin xéewal ak wërsëg ñu ne amin ak tal ak fekke ñu ne amin yàlla nañ ko fekke ay déwéni déwéni déwén ku ne ñaan daal li nga bëgg sa xol yaa ko xam ñu di ko toppante ki mag mooy def ki ci topp ki ci topp sama yaay pare man maa pour ki pare sama rakk yi ba ci sama doom yi ñu ñëpp ñu def a pare du duppal ñu bool bi kolkolu cere boobu moom ngay teg ci biir bool bi ci biir sànni ki tuuti ndox waaw dank bi ndox moomu ak cere boobu boo xëyee xale yëpp ki la ñuy laal seen bët yi duñu wànneen wànneen déedéet waaw li nga gëm rek moo am solo léegi nag boo ni woon tey kaay la ngi def sa waaye waaye yow nag yaay nag yow da ngaa am jot ma daan ko dëpp ba yàgg gisuma ku ma ci ku ma ci dimbali ama ah, far topp ni ñoom ku ne tam xarit ne cere te ku ne cere ne cosaan jigéen ñi nag di ci faral di def li ñuy woowee bomb cere ji diw ku bari ak suukar su bari nag ñu ko ci def mu doon toggin bu ute lool ak na ko maam daan defee lu ni mel tax kenn wératul ñuy ñaax jég ji ngir ñu gën a gëstuwaat toggin wi ba kenn du ci jëlee lorange fileek ay bés ñuy amal lii di tam xarit nag ku ko wax sa xel dem ci cere bañe de soxna may indiloon leen ni nga xamante moom la ñuy defaree cere ji nañu koy bombe ak it soos ba ñu cay def di ñax jeeg ji rekk ngir ñu gëna a bàyyi xel ci lépp lu nga xamante ne mooy sàmm kaaraange njaboot gi ak seen wér yaram di leen jox dig daje ci beneen numéro